بك انقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي حسن احترام جاد لنا باق تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلام وكل شيء والكتاب ندام نويت شكره عليك بقلام وخيرها يا سجوامي الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا غايدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله عبوت بيزام تبت لربي ظائرا كنت لربي ظاهرا بذا النظام لك وخبله أبوت بنظام وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم ñuy xalaat mooy indi ñu war a rafetal li imam wax léegi ci loolu la ñu war a taxaw moo indi jàmm ci réew mi moo indi naataange ci réew mi moo indi tamit nit ñi di dimbalante comme Fadel ni ngay faral di demee ci nit ñi di jaamu yàlla di rafetal ba ñuy am soxlo yàlla di leen dimbali ba seen i aajo di faju jaare ko sa loxo loolu su lawee ci réew mi ñëpp dañuy am jàmm. campagne bi tey. Euh, waaw ban message ngay wax ci ñi nga xam ne ñuy wut te war a indi jàmm ndax réew mi maye ma nga ca loxo suñu borom te waaw xulillahuma malikal mulki toxtil mulka man tasha wa tanziul mulka mim man tasha wa tuxizzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal xeer innaka ala kulli shay'in qadir mi mi ngi ci loxo suñu borom wut nag dafa ànd ak ñaar soo amee danga war a sant soo ñàkkee da nga war a sant waaw loolu la ñu jàng waaye nag la ca des muy message bu rëy bu may yónnee réew mi mooy Serigne Mountakha yan na fi yàgg te ànd ak wér naal yii mu yëkkati réew mi yar na ko eggale jàmm ci barke yonent bi salaay salaam ci barke maamam dafa ñu wax ne na ngeen dal bu leen yàq man ba mu waxee message boobu ba léegi bépp fitna bu am ci réew mi duma ci dugg ndax bëgg naa saa yu ma toogee moom mu ne ma la ma la waxoon kat nekk ca te loolu rek la ñu nekk. loolu la yeneen xalif généro yi nekk ci réew mi digle nañu doxee noonu su fekkee ut am na su ku am jël ña ca des xaaraat. xaar seen borom loolu rek laa bëggoon wax tey ci bis bi di leen sant bu baax yal na yàlla yàggal taxawaay bi